asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal ci ànd bi ngeen di ànd ak Equivox TV comme ni ngeen ko xamee rek saa su ne bis ni ki tey nag dañuy tàmbali tey ci beneen dynamique bu bees comme ni ngeen ko xamee euh, umpale woo leen li fi jot xew démb doy na waar yëngal na réew mi tamit dinañ ci ñëwaat ci kanam tuuti ma ànd ci ak yi nga xamante ne rek moom mooy Souka Seck waaye tamit bu leen fàttee Ramatulaay tamit mu ngi ci plateau bi ma bàyyi ko mu nuyoo rek laataay ñu gën a yaatal Ramatulaay maa ngi lay nuyu. Euh, maa ngi lay di amaat euh, contentement bu baax a baax defaat euh, teew fii seen émission. en forme démb affaire da laa xaw a laal de. yii xanaa <laughs> mais géré nañ ko. safoon na metti na. Uh-huh. xam nga mooy loolu noonu mais géré nañ ko alhamdulilah. alhamdulilah am na uh-huh. solo loolu xam naa ne namoon ngeen ko gëj ngeen ko gis ci plateau bi mu ànd ak ñun kooku mooy Souka Seck Souka maa ngi lay nuyu. bon euh, Mia man lay fay maa ngi nuyu aussi Ramses caatu groupe bi <laughs> maa ngi nuyu aussi les internautes di kontaan aussi rejoindre leen si plateau bi parce que fan yi defoon naa tuuti absence. Mhm. voilà di kontaan nag si sañse bi tey xale yi fi ngeen fël euh, mu ngi noonu c'est la classe. <laughs> mënta ñàkk ne naa la mënta ñàkk ku am euh, tata bu mel ni yow daal. macha allah foo ngay jéem a def. ay ca très rapidement rek ba tey ah, ci Equivox TV bis ni ki tey xam ngeen ne li fi xew démb ëmpul kenn ñi ñëwaat rek gis nañ ko ci xëtti njëkk yi ci yéene kaay ah. ñoom ñëpp en majorité dañu dellu ci rek ci li nga xamante ne moom mooy li xew démb lu ci mel ni las lu ci mel ni euh, ba tey euh, la tribune ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne xëy nañ ci xëtti njëkk yi taasukaa sekk réew mi démb xaw na yëngu ci diggante ki nga xamante ni moom mooy Barth mhm. ah, waaye askan wi ak Sonko ak euh, force de l'ordre yi waaw mi nga démb réew mi yëngatul noonu loolu moo waral titre yi tey eh, relayé nañ ko mais euh, li si mel ni euh, ku ci mel ni Barthélémy jaar Ousmane Sonko ak Malick Gakou ñoom ñett defe naa démb seen tur moo gën a feeñ ci toile bi parce que euh, bi manifestation yi amee. après mhm. sax interpellé woon nañ leen. Mhm. donc loolu bokkoon na si li nga xamante ni moom la ñu constaté démb ko yëngaloon na réew mi démb. voilà il paraît même y avait des euh, grenades lacrymogènes yu ñu doon tiré. yii safoor na. xam naa yéen safoor da ngeen ñu da ah. xam naa ni moom suñu confrères conseillers yi moom amoon nañu ñu ciy xawoon sonn ndax affaire démb tàngoon na trop macha allah. Ah. mais alhamdulilah euh, ñu gis ni renvoyé nañ procès bi. ba mois de décembre. waaw il paraît renvoyé nañ ko ba mois de décembre mu nekk loo xamante ni xaw na bett nit ñi. Mhm. parce que tous les sénégalais attendaient que démb la yëf di commencé. mais après di coup on nous a informé que le procès dañ ko yóbbu mois de décembre. Mm. mais man mon inquiétude mooy dafay jege lool période électorale. Mm-hmm. voilà les locales janvier deux mille le vingt deux vingt trois janvier deux mille vingt deux. lañ koy mm-hmm. def incha allah élection yi. Mm-hmm. mois de décembre c' est à quelques semaines des élections locales. l' euh, étude ou bien le constat bi nga xamante ni si élection yi fi jàll. ak manifestation yi amoon mois de mars. Mhm. tax na sénégalais yi démb ñu bëri ñu ngi am inquiétude par rapport au local. Mhm. ak euh, lii di procès Barthélémy Dias ndax nee nañ ndax réew mi du yëngatuwaat. Mhm. te li am démb aussi tax na nit ñi xaw a tiit trop. ci li nga xamante ni période bi ñu convoqué ak réew mi ah voilà foofu nag euh, ça fait donc euh, je pense que en tant que citoyenne. en tant que citoyen des Sénégalais, mhm. en tant que qu'acteur politique, euh, je fais appel aux, aux acteurs politiques, par exemple, euh, les dirigeants de Yewi Askermi, Barthélémy Diaz, euh, mm -hmm. la personne concernée, Ousmane Sonko, Malik Gakou, Khalifa Sall et tout, mm -hmm. tous les membres de Yewi Askermi, nous savons que nous avons fait un peu de temps pour le Sénégal, nous avons fait un peu de temps am na solo loolu gis ñoo ko gisandoo démb li xewoon fële na la ca domicile ki nga xamante ne moom mooy Barthélemy Diaz ba ci Médina ba tey it waaye xam ngeen ni rek euh, démb daal xel yëpp delluwaat nañ ci mars ñu ñaan yàlla rek bañ dellu ci loolu noonu nga xam ne moom moo amoon ba tey dañuy taxaw ci benn. Euh, xët bu njëkk bi nga xamante ne libération tey moom la ñu xëyee ñoom moom waxuñu ci wàllum politique yi mais dañu rek andil benn fee boo xamante ne doy na waar muy la filière libanaise concernée à Dakar maanaam trafic d'êtres humains la ñu seetlu ñu jàpp ci benn groupe boo xamante ne rek euh, ñoom ñu ngi ko doon defal amal ko euh, Ramatulaay ñu gis ni xale jigéen yu bëri soo tombés dans le panneau de li nga xamante dem du baay bi daal uti liggéey alors que li lalu ci suuf doy na parce que temps yi daal li xew ci dëkk bi. Mm. bëri na mm, meurtre yi fii doo comprendre surtout ñi ñuy daal ñu ngi ci souligner loo xamante ne mooy ce sont des actes terroristes parce que daa mel ni am na lu laxasu xasu si biir. non effectivement y a des mm-hmm. y a des y a à l'intérieur. Mm-hmm. léegi doy doy na waar daal lu lu ñu lu lu lu lu mérité xoolaat la. Mm-hmm. waaw xam naa rek. am na solo ñu bàyyi ci xel bu baax sensibiliser rek euh, suñu mbokk jigéen ñi nga xamante ne rek mhm. dañuy daal di dem euh, pour daan li nga xamante ne moom mooy seen doole am fa dara waaye tamit booy dem demal ci loo xamante ne daf la wóor daf la leer en tout cas. oui madame euh, damay emboîter ce pas. Mhm. parce que daan sa doole topp mu tax nit ki mu dem ci à loo xamante ne leer ko yan conséquences la fay fekk foofu noonu parce que si on prend ce que la libération a la prière euh, libanaise Cerné à voilà fii nii euh, aussi on parle de prostitution on parle de l'esclavage mhm. donc ñooñu seen i mbokk wala ñoom ci seen bopp xalaatuñu woon ni bu ñu demee loolu la ñuy fekk si mhm. dëkk yooyu noonu mhm. donc bu ñuy daan doole nañu dem ci migration mais avec des conditions yoo xamante ni la première euh, chose bi ñu war a njëkk xool avant ñooy dem mooy ci yan lan la ñuy fekk foofu noonu ndax dinañ am sécurité ak ci yan condition de travail dañuy fekk foofu mhm. parce que une couche vulnérable mooy jigéen ñi mhm. te lii ci mhm. jigéen ñi lay dal te defe naa war nañ mën a gën a protéger suñu sœurs yi Sénégal metti na moo tax jigéen ñi léegi dañuy dem immigration comme góor ñi wante nag buñ leen exposé à l'aventure di leen dugal ci loo xamante ni on ne souhaite pas exactement Souka wax nga léegi lu am solo parce que jigéen ak góor bokkuñu góor mun na jékki-jékki euh, débarquer ci benn ville boo xamante ne xamu fa kenn peut-être mu dem ñu loger ko wala yeneen ak yeneen mais c'est pas le cas pour jigéen mhm. jigéen nga dem foo xamut tu es obligé loger ak koo xamante ne peut-être xamoo ko donc dans ce cas tu es exposé viole mën na la ci fekk ak yeneen ak yeneen moo taxit euh, jigéen balaa ngaa génn dem foo xamul da ngaa war a gëstuwaat bu baax a baax fi nga jëm xam foo boo demee fii ak fii laay nekk du boo demee tu seras plus en sécurité. ay Aïcha mu ngi noonu en tout cas 17 jeunes fii la woon qui qui ont été sur le point euh, d'être embarquées euh, jëmal fi nga xamante ne rek moom mooy Dubaï ba alhamdulilah bi nga xamante ne rek ñu yore woon enquête boobu teel nañ leen ci interpellé au mën nañ ne sauvé nañ en tout cas quelque euh, ñu jàll rek ci li nga xamante ne mooy moo xewoon démb xam ngeen ko mooy xale bu jigéen boobu nga xam ne yi a ngi koy gis sur la toile mu jotoon ab benn incident. Mhm. ñun nag on a été témoin des faits laata mi ñëwaat rek ci li nga xamante ne moom moo fa xewoon ñu fekkee ko. dañuy bàyyi témoignage yu un témoin oculaire bi témoin principal bi sax laa kay wax léegi léegi ñu déglu ko ñëwaat ak yéen ci biir plateau bi. Euh, ñu ngi leen di nuyu di leen di remercier ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun gis ngeen ni xew démb ci manifestation bi amoon fële na la ca Medina euh, incident boobu nga xamante ni xale bu jigéen bi moom moo amoon benn accident rek ñu bëggoon ki nga xamante ni moo nekk témoin des faits revenir ci ñu koy wax Malick Balde Malick Balde mën nga ñu delluwaatal rek ci li nga xamante ne moom nga jotoon fekkee démb ci incident xale bu jigéen boobu. dama leen nuyu Mariama euh, démb en fait dama fa ñëwoon comme man léegi mu ngi ñu action bi mu ngi amee woon euh, côté face alors auto dig bi euh, dafa bëggoon doubler yeneen auto yi auto convoi ñoom Barthélémy Dias bi pour coincer leen pour bu ñu jéggi pour bu ñu bu ñu traverser secteur boobu noonu génn secteur boobu alors moment bu muy bu muy bu muy bu muy bu muy naan day jég day day kii comment day doublé yeneen oto yi moment boobu noonu nag foule bi la la la avancé si ko foule bi léegi bu mu avancé si ko foule bi gars yi dispersé léegi nag si la laal soxna si si si aile bi bu mu ko laalee si aile bi soxna si trois cent 360 mu dugg entre auto digue bi ak euh, beneen euh, auto auto si auto convoi yi xam nga day former genre pyramide bu bu avancé tuuti. Mhm. day day kii jotoon na laal xale parce que daka laal dafa laal soxna si ba soxna si dugg si biir kii bi. comment dire entre ñaari oto yi. ban oto moo ko laal en premier. non oto oto digue bi la. d'accord oto digue bi parce que moment boobu convoi bi dafa taxaw. Mhm. oto digue bi ne day doubler convoi pour arrêter la ñu si secteur bi. Mhm. je vois damay dégg nag gars yi naan dëkk dëkk euh, heurté de façon waaw heurté na ko sax parce laal na ko laal na ko sa si aile bi tey ku jigéen ki ba mu fay jógee mu ngi doon naan. Mhm. ndigg bi mu ngi metti ak tànk bi. waaw léegi bu ma bu ko si laa ko gisee jóge fële doon daw man j'étais même pas dans les faits en fait. Mhm. mais maa ngi doon gis action bi ba ma dawee mu ma ne dama koy récupérer moment bu ma koy récupérer pour xëcc ko si la autodigue bi laal sama tànk. si la bu mu laalee sama tànk pied pied droite bi. Mhm. mais alhamdulilah parce que nee nañ amul fissure amul dara. Mhm. mais par contre si la si laa ki ba mu ko génnee foofu noonu xale bu jigéen bi. Euh, ma tourné ko au oh, beneen gain beneen gain bi genre genre kii la videur je ne sais pas moom ak bi ñoo àndoon moo nekk soloon lu bleu li si la ma ko jàppale ma ne ko téel ma ko parce que instant yi mënatuma dox ba mu ko téelee mu ne ma nañ ko yóbbu côté gële ma ne ko noonu nañ ko dugal si kër bi fii moment boobu lañ ko dugal si kër bi après la le journaliste commencé ñëw. Mhm. léegi bu ñëwee ñu ñu commencé wax de de expliquer mais bon je peux dire que autodigue bi moo ko mbëkk. Mhm. ba mu ko mbëkkee soxna si def cent 360 mu dugg entre auto convoi wu. ñoom sonko bi ak dig bi te bu continué rek da doon xale bu jigéen bi moment boobu laa daw xëcc ko pour pour pour mun ko sauver parce que parce que avant tout nous sommes nous sommes des des êtres humains mhm. te bu ñu gisee tamit ku nekk si ay danger mhm. donc on doit faire lu maximum pour la sauver donc loolu taxoon ñu def loolu noonu te alhamdulilah vu que tamit euh, benn benn tëcc tëcc bu ndaw laa si am si tànk te te te bañ defee rajo yi tamit nee nañ amuñu fichier. Mm-hmm. donc alhamdulilah. donc yow da nga risqué sa vie pour sauver benn vie boo xamante ne nii euh, ñi fa nekkoon bëri nañu te li nga constat bi nga def mooy ñëpp a ngi gis action bi mais kenn demul pour sauver xale bu jigéen boobu noonu. waaw parce que ñeneen ñeneen ñi ñu ngi concentré aussi euh, caméra yi ñeneen ñi ñu ngi doon concentré aussi xeer yi doon ñëw du gauche à droite. Mm-hmm. mais peut-être. Euh, réflexe bu ma bu ma suñu borom may mayu ko keneen mënoon na ko may keneen ak keneen c'est pas c'est pas des choses yoo xamante ni dañ ciy dañ ciy dañ ciy namoo mhm. c'est juste que bu ñu gisee nit ku nit nit nit ku nekk ci ay jàqare mhm. nekk ci nekk nekk ci ay problème donc on doit faire le max pour loolu kese la woon. ñi di wax ni xale bu jigéen bi journaliste la euh, mais gisuñu woon ñi mu àndal. parce que mhm. ñu ngi woon foofu noonu ak yow euh, pour rappeler que ni on est ensemble c' était mhm. dans l' équipe. Mhm. Euh, en même temps dañ ko yóbbu di ko ëpp par contre di ko sotti ay ndox mais kenn ñëwul woon en tout cas jusqu' à ce que ñu fay jógee benn ambulance ñëwul woon pour jësi ko foofu. oui ce plus désolé ku nekk da doon ñëw def ngir intérêt en parce que di nga bi. pour juste euh, def vidéo wax lu mu war a wax teg teg wantaay bi dem yoonam ci vois. Mm-hmm. Mm-hmm. loolu loolu c'était tellement désolant man te gis naa ko fa. man moment boobu maa ngi toog fële parce que bëgguma woon sax mm-hmm. ñu xam ne du genre j'ai sauvé la fille wala tatati tata je maanaam je cherchais même pas ça en je cherche dama doon def loo xam te ni yàlla rek a tax mais après nit ñi ku jigéen ki mu ngi tëdd. mais ku nekk. sa intérêt bopp moo la fa andi woon voilà vidéo après nga dem sa yoon tëdd na fa nag lu yàgg ñu on a passé là-bas tane ten tu étais là-bas uh-huh. voilà léegi léegi ñëw na foofu noonu ñu dure foofu lu ma 30 minutes après ñun si lañu ñëw euh, jël suñu oto pour rappeler les gens je suis un caméraman en même temps réalisateur à Equivox TV uh-huh. donc euh, si lañ ñëw ñibbi mais foofu lañ leen bàyyi te boobu ba léegi yow buñ fay jugee uh-huh. sapeur ñëwagul woon effectivement mhm. mu nekk di ñi lay masawu ci li nga xamante ni c'est pas mhm. mais alhamdulilah yàlla sotti na ci ndox bu ta ndox bu sedd mhm. euh, dem nga hôpital alhamdulilah ñu lay souhaiter prompt rétablissement merci beaucoup mi ngi noonu yéen a ko déggandoo ak ñun muy témoignage bi nga xamante ni Malick Balde moo ko def euh, présenté wu comme caméraman fii ci kër gi ñu ñu témoigner rek fekkee li nga xamante ni moom mooy euh, incident boobu nga xamante ni ñu ngi koy ñaawlu di ko naqarlu Euh, li tax rek ñu tegal leen témoignage am bi parce que gis nañ euh, un peu partout li nga xamante ni moom mooy circuler ci toile bi ay information yoo xamante ne xëy na ñi ko bind sax wala ñi ko ñi koy véhiculer sax daanaka fekkeewuñu ko ñu ñaax rek li nga xamante ne moom mooy suñu mbokk journaliste yi nekk ci milieu bi nekk ci métier bi di ci liggéey ah scoop wala bëgg njëkk véhiculer information am na yenn yoo xamante ne tamit euh, day laaj rek nga teg ko ci yoon revue qui euh, comment dirais-je encore euh, jàllale li nga xamante ni moom mooy li nga xam li nga xamante ne aussi c'est sûr que et c'est ma ñëw ci loolu tasuka waaw di euh, féliciter d'abord notre réalisateur Malick mhm. Baldé ci acte patriotisme bi mu def parce que dafa sauver une vie au prix de sa vie même parce que mhm. li mu def risque la d'ailleurs la preuve en est am na si ay blessures tant tante bi mhm. donc courage boobu mu am Euh, jël euh, kii humain bi sauvé xale bu jigéen ko nekkoon coincé wu entre deux euh, voitures donc franchement moi je tenais je à le féliciter. Mhm. et à l'encourager parce que day wane ni moom franchement référence la si jeunes yi. mais aussi la lecture faite aussi mooy les seen mbokk journalistes yi <laughs> bu ñuy relier presse bu ñuy relier information autant pour moi nañu bañ a traverser la réalité loo xamul. Mhm. bàyyi ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko xam ñoom ñoom ñu véhiculer la bonne information mhm. parce que ils sont là pour informer juste et vrai mhm. donc kii informer juste et vrai kooku la muy wax dafa war a nekk lu leer loo kenn du ci dindi dara euh, équipe euh, Equivox TV vous êtes les mieux placés pour incident bi amoon démb balaa ko kenn relayer ngeen relayer ko ni mu demee parce que yéen yéen a nekk ay témoins oculaires mia yaa nga fa woon. Mhm. notre réalisateur Malick mu nga fa woon. Mhm. donc yéen yéen a waroon njëkk a wax sax avant keneen di relayer relayer. Mhm. voilà loolu ñu je tiens franchement à préciser aussi. beneen bi mooy xale bu jigéen bi aussi li ma liir ñu naan dafa nekk dans le coma d'après li ngeen wax. man dégguma benn yoon lu méngoo ak loolu noonu. donc wax nañu sax loo xamante ni demeewul noonu. amul on peut dire que comme wax naa ko léegi ah bëgg scoop bëgg njëkk véhiculer information et te li nga xamante ne ñun moom la ñu constaté sur les lieux mooy que manque d'humanisme bi nga xamante ni am na foofu noonu. tey jii euh, war nañ ñaax ñi nga xamante ne ñoom ñooy rejoindre parce que nous on était parti dans ne dañuy rejoindre foule boobu noonu tey képp koo xamante ne yaa ci blessé wu rek je me dis que ni yow yaay premier perdant bi. c'est pas pour décourager quiconque nag parce que en tant que citoyen am na yoo xamante ne ni. si ça te tient que da war a présent mais ñu bàyyi xel yooyu noonu nga xamante ne mi ngi am ci biir après nag ñu bëgg ko politiser euh, lal yenn yoo xamante ne ci suuf yoo xam ne bokku ci après jël ko nag soit féetale ko camp bi wala féetale ko camp be alors que yi exactement nit ñi duñ ko wax. effectivement euh, voilà foofu aussi il faut aussi euh, ñu gën a qu'on soit un peu plus sérieux quoi. Mmh. parce que benn affaire am benn incident am ñu bëgg koy jël def ko récupération politique. c'est de la malhonnêteté. Mhm. et de la malhonnêteté qu'on qu'on saurait cautionner ou bien accepter. li nga xamante ni ooy mooy humanisme bi aussi nit ñi war nañ ko war nañ ci gën a bàyyi xel. Mhm. que am na loo xamante ni war nañu war nañu doxee noonu. mais aussi si loolu aussi les acteurs politiques aussi li nga xamante ni lu xew rek ñoom ñu bëgg ko def récupération politique aussi. Mhm. foofu aussi malhonnêteté am na fa des deux côtés ah. voilà il faut constituer la responsabilité. et aussi qu'on revienne à la raison ba nga xamante ni lu am wax ko ni mu demee mais aussi les euh, l'autre camp aussi ñoom tam ba bañ a jël loolu noonu def ko à leur profit alors que waroon nañ ko mën a def à leur profit parce que li am ça n'a rien à voir avec l'acte politique mhm. voilà Aïcha mi ngi noonu Ramatoulaye yow tamit euh, yaa ngi woon sur le lieu fekkee li nga xamante ne rek moom moo xewoon foofu on était ensemble tey ji lan la nga ñu ci dooleel euh, exactement Mariam man fi may commencer mooy souhaiter un bon rétablissement à euh, c'était courageux de sa part macha allah acte bu noble la def nekkul loo xamante ne ku nekk ko mën a def. man action bi ma njëkk a gën a marqué dans tout ça mooy les gars le les journalistes qui étaient mhm. bon soi-disant journaliste je ne sais pas un journaliste. parce mhm. que réew mi léegi ak fi ñu toll on dirait on dirait que ñëpp ay journaliste lañ <laughs> euh, El Hadj sax bu ko neexoon yor téléphone am dem ci dëkk bi di filmer wax li ko neex naan journaliste la exactement alors que journaliste journalisme c'est quelque chose qu'on apprend mhm. nekkul loo xamante ne da jékki-jékki rek naan waa je suis journaliste mhm. le gars était avec son téléphone di snap waa di làkk ah. soose la doon làkk naan waaye je suis naan je pas comment. mais en tout cas soo se la doon ak ngi nii ah? moo ko jaral réew moo ko exactement en même temps suka en même temps yor benn plat di ëpp la daam imagine bu mu waxee lu muy wax ba pare disna snap la pare sànni plat bi daw. continuer suivre mhm. action yi loolu kooku lan moo ko taxoon jóg du juste topp action kese kese benn acte humanisme defu ko moom jéemul jàppale kooku pour xool suite bi ndax dina jug ou pas mhm. defu ko xalaatu ko moom daal na self na am selfie rek naan fekkee naa mhm. looloo sonal sénégalais fekkee naa fekkee nga def naa bokkul parce que moom tey jii ni peut-être action bi sax bu muy am mi ngi taxaw a côté di xool. Mm. mais il n'a pas réagi. Et Malick était le seul à réagir apparemment après ci la gaa boobu noonu. Mm-hmm. ñëw pour jàppale ko. donc nit ñi nañ delloo si xel yi dara bum la jaral génne ay information yoo xamante ne wóoru la. Mm-hmm. lu ñu wax ci mm-hmm. discours bi du noonu c'est pas vrai. c'est pas vrai. ils dire, ont hein. dit que mm -hmm. ils ont dit que juste après ça la dame a été conduite à l'hôpital mais c'est des mensonges. c'est pas vrai euh, la dame elle était là. Mm-hmm. plus de 30 minutes ñun ba ñu jóge fa. j'étais là-bas man Ramatoulaye Malick ainsi que Maya. Mm -hmm. on était là-bas la dame elle était là couchée. plus de 30 minutes du ambulance du du du clinique dara jël si wu ko. sans assistance. comme ça en plus mënoo xam kan la àndal parce que. voilà man sax dama foogoon ni gars bi ko doon ëpp sax ils étaient ensemble. àndut ak moom. en plus mais bi muy demee le gars c'est là qu'on a compris que euh, apparemment que la fille était en fait wax yee bëri mm. ah, man gis naa info boo xam ne tey dem nañ ba naan sax la dame les et c' est pas des faits yoo xamante ne ñun mën nañ ko confirmer parce que femme bi état bi mu nekkoon mënuñu woon xam ndax journaliste la wala nekkul journaliste mais en tout euh, point boo xamante ne nii elle-même voilà tu vois elle ak euh, ñuy nga xamante ne aussi exactement elle disait que ndigg li ak tànk yi ñooy metti mhm. kooku naka la mën a euh, nekkul ci état sax wax si elle est journaliste pas donc appuyer li ngeen wax yéen ñaar mhm. Mia ak Ramatoulaye mhm. parce que au moins am ngeen courage ngeen euh, ngeen rétablir la vérité. Mhm. parce que euh, bu ñu liiree commentaires yi ñu doon relayer ci yenn sites yi daf on dire que euh, la vérité dañ ko tra travestir wax loo xamante ni c'est loin de la vérité. Euh, heureusement euh, ngeen am le courage tey ngeen apporter. ou bien ngeen éclairer la lanterne des Sénégalais. Mhm. parce que mm incident bi am démb mu ngi nekk ci toile bi yëpp. Mhm. donc foofu la ñuy xaaree journalistes yi ñu mel ni yéen. ci lool noonu man tam damay def un appel par rapport ak seeni i mbokk journaliste man moom <laughs> bokkuma ci waaw mu ngi noonu par rapport ak seeni i mbokk na ñu bàyyi xel ci ay texte ñoom ñoo leen euh, ñoom ñoo leen tënk mhm. ñuy bàyyi aussi tout le temps di fàttaliku seen éthique seen morale ak seen déontologie mhm. parce que ni journaliste la te loolu yëpp doo doo ko doxe aussi mhm. kooku noonu aussi jar na jar na seetaat en plus dañu nekk ci réew moo xamante ni tëb rek ni journaliste laa dafa yomb parce que bi snap xewee ba tey lu xew snap nañ ko daal di def benn genre reportage daal ni def seen bopp journaliste. il faut ngeen assainir aussi seen milieu bi aussi ah. parce que laisser aller bi ci nekk dafa bari trop. Mhm. voilà. mu nekk lu am solo loolu yéen a ko déggandoo ak ñun nañ ko doon euh, partagé ak yéen ñii rek fàttali ñi nga xamante ne ñoom ñooy rejoindre genre manifestation yooyu ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy auteurs yi di ko di ko di ko di ko di woote manifestation ak yeneen yu mel euh, ni yooyu. Euh, ok Mariama en fait man li may njëkk wax samay mbokk journaliste bon je sais pas si je peux me réclamer journaliste. bien sûr bien sûr <laughs> <laughs> voilà samay mbokk journaliste mooy nañu dee di vérifier information yi avant ñu mhm. koy diffuser. Mhm. parce que am na ñoo xamante ne ñoo ngi si ginnaaw sama genre yi bu ma jotee benn information rek maa ngi koy capture envoyé ko Mariama <laughs> ma ne ko lii moo xew ci dëkk bi tu vois donc nañuy vérifier bu baax a baax information yi mm-hmm. avant ñu koy diffuser c'est très important mm-hmm. loolu principal rôle d'un journaliste la mm-hmm. un journaliste c'est quelqu'un qui sait vérifier ses informations mais du koo xamante ne yow jot nga information rek waa lii moo xew donc relayer euh, euh, kii naa ko partagé naa ko voilà man loolu laa amoon li may wax ci ay ayca mi ngi noonu mu nekkul am solo loolu sauf que aussi c'est pas facile ci yenn circonstances yu mel ni ay manifestations journaliste war ci def direct mhm. bëgg lépp loo xamante ne rek am na foofu noonu relayer ko li nga xamante ne moom mooy internautes yi mais quand même rek nga xamante ni moom mooy éthique ak déontologie ak li nga mhm. xamante ne rek moom moo tënk journaliste bi lii moo nekkoon seen première partie bis ni ki tey dañuy jàll rek très rapidement ci deuxième partie bi comme ni ngeen ko xamee tous les jours dañuy ñëw yéen ci seen cas tey nag dañ koy gën a yaatal xam naa taasukaa moom gëjoon na kaa mété kaa bu bees sax laa la andil <laughs> muy euh, li nga xamante ni peut-être ñenn ñi jot nañ ci sax xam naa ni parce que événement yi nga xamante ni moom moo démb accaparé li nga xamante ni moom mooy toile bi moo tax mënuñ ci war a revenir mais tey mhm. dañ ci revenir plus largement fii bi nga xamante ne ni euh, elle a été mariée les faits se sont déroulés à Khombole Thiès je pense mm la fille elle s'est mariée avec le après cette consommation lune de miel Euh, gars bi le gars l'a répudié maanaam daf ko fase bi mu ko fase euh, dugal ko ci taxi yóbbu ko këram woo ay waa këram ne leen fase naa ko ndax lan soxna soosu kat ngeen ma mën amul ndaw man xaw ma na contrat woon bi muy andi may bu njëkk ndax daf leen xale bi daal bu amul ndaw dama leen koy delloo wala fu moom dese xam naa ni yéen maa ngi xaar seen commentaire incha allah ci suuf tey jii mu nekk fee boo xamante ni doy na waar mhm. traumatisme la man mën naa insulte la envers la femme li nga xamante ni moom moo jigéen Euh, jigéen lañu la ñu rabaisser à ce niveau là Tasuka waaw euh, Mia euh, donc mu nekk loo xamante ni ñëpp ñu ngi koy ñaawlu képp kuy jigéen ah mm. yaa ngi ñaawlu loolu ndaxte ku nekk am nga yaay am nga sœur walla am nga tante te je pense que waa ji moom ci boppam dama koy indexé du poids mm-hmm. moom ana ay sëram walla ana yaayam parce que bu fekkee jigéen moo la jur nga am ay jigéen mm-hmm. am na loo xamante ne sa xol walla sa xel waru ko may mm-hmm. man nag lenn moom a jaaxal nga takk euh, sa jabar jël ko ba pare jël li nga xamante ne moom ngeen utiliser woon. Mhm. mu intime nga jël ko yóbbu ko. Mhm. ba pare fase euh, xale bu jigéen bi ah foofu nag xel dafa euh, daal di tey. Mhm. waa ji lan moo nekkoon sa vérité sa la raison ou bien sa motivation. pour mariage boobu noonu est-ce que dafa marié woon femme bi. ndax mariage par amour. wala dafa amoon benn motivation bu taxoon mu def. mariage boobu noonu ba consommer mariage bi ak jabar ji parce que. dafa tey xel daal yëf yi li ñu ko waxee daal tey na xel daal. mu nekk euh, loo xamante ne ni bi ko internet yi déggee commentaire yi bëri woon nañ ci tey na xel comme li nga wax taasuka mais mariage boo xamante ni environ une semaine de durée waa ji jël na li muy jël fase ndaw si delloo ko ay kër mbokkam ginnaaw bi mu paree ci loolu. mbokk yi tamit affaire bi jaaxal leen lool. Mm-hmm. te yaakaar naa ne famille bu mu nekkoon yow it euh, dina la jaaxal dina la perturber parce que déshonneur la euh, loo xamante ne la lañ teg ci sa dara. ñu ñaaw donc dafay jaadu nga am ci lanterne éclairer li nga xamante ne moom mooy les faits ñu jël xale boobu noonu yóbbu ko hôpital mhm. médecin yi bi ñu defee saytu xale bi effet dañu contourner li nga xamante ne moom la jëkkër ji waxoon mhm. parce que dañu ne effectivement la fille el venait quand même de faire son premier euh, li nga xamante ni moom mooy rapport sexuel mhm. qu'elle était vierge pour dire vrai léegi nag euh, famille bi contacté waat le gars pour ces choses là affaire famille apparemment il y a eu même des la part euh, de son ex-mari Euh, envers la famille bi nga xamante ni waa la famille de la jeune fille mu nekk loo xamante ni nag ñenn ñi ñu ngi naan euh, dangay may sa doom ngir alal mhm. parce que peut-être ils n'ont pas pris le temps xam ku góor ki moom mooy kan mhm. mais moi je me dis que ces choses nit ki mënoo am xam-xam ba mhm. prévoir ces genre de choses là ramtulaay euh, Mariama li nga mujjee wax am na solo nit ki mënoo am xam-xam ba prévoir ces genre de choses mais am na yoo xamante ne ci responsabilité famille bi la ak ku jigéen ki la gis nga xiif taxuma lekk du n'importe quoi de tey jii ni xale jigéen ñi li leen sonnal mooy tendance bi ma copine s'est mariée donc je dois me marier sama xarit marié wu na donc je dois me marier alors que c'est pas ça affaire bi du course de vitesse balaa ngaa dugg ci nit ki xoolal gestul de gauche à droite si kii kan laay ki may waaj a dundal mhm. lui consacrer sa sa sa sa sa adduna yépp daal mm-hmm. donc kooku noonu dafa war a doon koo xamante ne danga ko xam aussi parents yi parents yi nañuy gëstu famille xale bu góor bi mooy kan avant noonu lañ daan def mm-hmm. xool yaay yi mm-hmm. xale bu góor bi fan la jógee yooyu noonu mais léegi daa mel ni yooyu amatul tu vois yooyu noonu je pense que genre yooyu noonu mooy jur lu mel nii mm. parce que tey jii nii peut-être bu ñu gestu woon bu baax a baax par avant dañ paa yi dañ daan dox ci koñ bi laajte ah tey daal ki tudd Malick bëggante nag diw mhm. mais noo xamee kooku mhm. léegi gis bi di expliquer naan kii daal ku baax la wala kii daal baaxul kat ku baax la woon yaayam kat ku baax la woon ak yooyu mais loolu amatul mm. tu vois genre yi yëpp ci la ci la ci la ci la mën a juddu mhm. moom la femme je pense que c'est une victime c'est une victime mm. parce que moom lu mu lu mu lu mu daj nii benn xale bu jigéen ñaanu ko yàlla mm. parce que déjà sër boobu noonu dafa doon lu sacré mm-hmm. on sait pas kii bi xale bu góor bi. ci lan la ciy def ak ban lan la ci njortu. Mm-hmm. tu vois mm-hmm. donc euh, c'est c'est c'est c'est à revoir. mais sœur bi c'est de sœur bi du xale du sœur xale bu góor bi kon je me dis que bu fekkee ne soxna si li mu doon xaacoo bu am ko mel ne que delloo sëram buub ko moom ak sœur bi delloo ko ay waa kër mais pourquoi le fait que moom mu garde sœur bi bëgg ko garde ba pare delloo xale bu jigéen bi kese. xam nga sànq dama déglu Rama. Mm-hmm. daf xale la mais dafa war a dafa wax boo wax boo xamante ni. Mhm. loolu mooy suñu aada gis nga Sénégal dañu am ay aada yoo xamante ni euh, la jeune génération daf koy négliger toujours. Mhm. mais yi fi xew yëpp loolu moo koy indi parce que mariage parents yi daf dañu am rôle buñ ciy joué ndax sa doom am na ku ko bëgg gëstul waajooju ñan ñooy ay mbokkam. gëstul waa jooju ban façon nit la gëstul waa noonu fan la sokkee ko mhm. gëstul waa jooju noonu ndax c'est une personne digne euh, de bonne foi ci mhm. li ko dugal ci mariage bam peut-être ces manquements mhm. wala légèreté yooyu noonu peut-être dafa am moo tax lii lii lii rattrapé leen mais man duma duma culpabiliser la fi parce que elle est victime dans cette situation et et elle a besoin aussi d'un encadrement mhm. psychologique aussi parce que mhm. choc choc émotionnel dina ko dal ndax lu mel nii on ne le souhaite pas ku mu daloon di nga xamante ni metti na mhm. parce que euh, le mariage dafa nekk loo xam c'est sacré du moment que jël nañ la dugal nañ la ci mariage ba nga consommer sa mariage rek déjà compter nañ la sëy benn te sénégalais yi am nañu benn habitude boo xam boo sëyee tas rek victime bi yow ku jigéen ki lañ koy teg duñu xool sax ndax ku góor ki moo nekk fautif mhm. wala fautiful automatiquement yow la ñuy indexé du doigt la société regarde comme si yow yow yaa nekk nit koo xamante ni mooy loolu. mais su kaa dogguma la moom mhm. la gis nañ ko fi tout récemment ak mhm. euh, la femme là qui a perdu ses enfants avec euh, le mari là man euh, j'en ai vu yoo xam ne ñu bëri dañu daal ci kaw ndaw si. pourquoi parce que. ñoom ils se mettent à la place de la femme ñi nga waroon gérer sa sëy mm-hmm. Mm-hmm. amaan na ko gérer woon sa sëy doo mm-hmm. divorcé te say doom xëy na wala sa jëkkër du demee nii ak neneen am na loo xamante ne nii peut-être je me dis que ki nga xamante ne moom moo nekkoon euh, moom moo vivre li nga xamante ne mooy la situation quand loolu noonu Mia euh, man dama ciy revenir tout le temps damay wax nit ki li mu dund moom nit mënu ko juger te tant que dundul nit kooku li mu dund donc on arrête de juger les gens ci seeni Euh, aussi foofu noonu aussi euh, la société aussi war nañu xoolaat góor ñi. Mhm. bu ñu exposé rek jigéen ñi. parce que gis nga histoire fem boobu noonu ak doom yi ñu rey ak yooyu noonu. nit ñi dañu retourné wu ci femme bi. Mhm. tout le temps la femme moom mooy nekk nit ki nga xamante ne moom mooy subir la euh, répression wu. société bi mhm. quand je parle quand je prends l'exemple bi ñu joxee léegi muy femme bi ñu marié léegi ba pare libéré ko comme ça. consommer le ménage déjà moom tam mooy subiraat li mettiwaat. Mhm. donc nañu nañu defaat introspection ñu xoolaat aussi qu'est-ce va pas si côté ku góor gi bu ñu jaree bu ñu waree toucher du toit mhm. qu'on n'hésite pas à le faire mhm. su ñu waree sanctionner qu'on n'hésite pas à le faire mais arrêtons arrêtons tout le temps ñuy victimiser ku ñu ñu ñuy culpabiliser ku jigéen ki surtout parce que metti na nga nekk ci situation bu mel noonu ba pare. Mm. di subiraat des répressions supplémentaires yoo xamante ni mënoon na ñàkk. Mm-hmm. parce que ñi en général ñi koy culpabiliser. Mm-hmm. est-ce que bu ñu nekkoon ci situation boobu noonu. Mm-hmm. ñoom est-ce que dinañu euh, kii comme femme boobu noonu. est-ce qu'ils vont tenir voilà voilà muy noonu donc euh, pour terminer je vais pas monopoliser la parole. je pense que euh, nañu xoolaat taxawaay yi daal. te ñu xoolaat fu ñuy joxe suñu doom yi ndax sëy dafa doy waar. en tout cas doy na waa trop euh, ngir semaine bi yëpp liñ ciy dégg euh, c' est vraiment dommage et c' est pour euh, li nga xamante ne mooy nous les femmes mm-hmm. góor ñi daal ñu ñuy yen rek ñu ñuy yen di ñu yen te en mm-hmm. tout cas j' espère que dinañ on aura courage et voilà. la patience euh, de de passer à autre chose et de, de gérer ces douleurs mais man dama am loo xamante ni dama ko ciy dégg loo xamante ni daf ci laxasu mhm. parce que ñu bëri ne nañ c'est à des fins mystiques parce na ni ñu ngi Afrique te am na lu bëri loo xamante ni dafa lalul ci diggante sëy euh, ki nga xamante ni dafa séex ak borom këram surtout loolu noonu ñuy wax le le drap boo xamante ne ni mhm. moom la ñuy xaar ci jour guddi ah ñu bëri ne c'est à des fins mystiques parce que le dafay politique. Mhm. ñu jëm ci ay élections locales mu suscité beaucoup de de de voilà de commentaires yoo xamante ne ni vraiment ñaawlu nañ ko trop. Euh, Mariam, je ne, je, ne confirme, je ne confirme pas que ce sont des faits mystiques, mhm. mais c'est louche en tout cas. Mhm. C'est très louche. Vu que le gars, euh, c'est un politicien. Mm -hmm. C'est très louche. En plus, je tombe à la période où nous avons élection. En tout cas, je suis en train de me dire que lu ñu moytu doyut ñun xale jigéen mm. parce que gis nañ fi ay góor yoo xamante ne mën nañ ñëw ci yow. Mm. proposer la loolu ak loolu. Mm-hmm. góor génne un million takk la découvrir la. un mois après non ci ay ay 30 millions la si tout dara léegi affaire bi yegg na marché la si ñoom. voilà c'est ça uh-huh. ça dépend Uh-huh. découvrir la le lendemain wala un mois après jo commencé laa indil ay coow coow bàyyante ak yow tu vois loolu c'est comme de l'eau à si mm. ñoom loolu du dara si ñoom donc nañuy bàyyi xel bu baax a baax a baax ci kan la ñuy seeyal surtout ça loolu moom lu mm-hmm. luñ ci mënta bàyyi xel rek doyul man mm-hmm. côté boobu laay gën a uh-huh. kii mm. Aïcha am na solo loolu taasuka xam naa ne nag temps bi mu ngi ñuy rattrapé très rapidement laata rek ñuy tëj li nga xamante ne moom la indiloon leen tey euh, ñu terminer ci cas boobu noonu. voilà pour ci cas boobu noonu li nga xamante da nga ko wax léegi dafa am solo. Mhm. mooy euh, dañu nit ñi nee nañ dañu nekk ci ay période dañu nekk ci période électoral mhm. moo tax affaire mystique yi bëri. Mhm. c'est vrai c'est une réalité boo xamante ne ñëpp dañ koy nakkalu parce que mënuñu à chaque fois. bu approche élection jotee ñuy wax naan rey nañu xale. dagg nañu bopp ba wala na dañu dégg telle personne dañu yóbbu mm-hmm. sang comme li am à Castor mm-hmm. keroog euh, aujourd'hui cas bi ñuy traité fii aussi mm-hmm. mu niru mystique mais euh, jeune jeune confirme pas que la mais loolu la nit ñi di wax en plus la motivation moi je touche du doigt tout ci la motivation le lan moo ko motiver parce que li nga xamante ne mooy drap nuptial bi gars bi amul woon pour di ko yóbbu kooku famille ku jigéen ki moo ko moom voilà loolu noonu tey na xel loolu tey na xel te ku ko waxul itam si kaw wax nga ko ci suuf. Mhm. donc man li may wax rek. Mhm. comme nee nañu politicien le je la ko connais pas. Mhm. mais li may wax di ko wax les acteurs politiques mooy nañu jàpp ni Allah Karim borom bët bu mag bi. dara ump ko. nañu jàpp ni lu mu metti metti mu yéex mu gaaw dañuy dem si suuf. te nit lu mu def ci àdduna rek bu demee moom lay fekkaat ci bàmmeelam donc nañu jàpp ni yàlla rek moo mun keneen mënul kon affaire mystique pour lan. bu dee da war a falu yàlla mooy fale kii mm-hmm. falu yàlla mm-hmm. fal na ko pare mm-hmm. kii yore nguur yàlla jox na ko nguur ba pare donc nit ñi nañu delloowaat si seen bopp ci yàlla te ñu xamante ni yàlla mooy joxe mooy fal te mooy bàyyi surtout pour terminer. ayca am na solo lool te xam naa ne suñu mbokku internet yi dinañ bàyyi xel ci loolu ñu bàyyi la très rapidement nga tàggoo ak ñun laata may jàll ci Ramatoulaye. waaw maa ngi euh, tàggu sama ñaari doom yi sama ñaari euh, collègues yi aussi mes consoeurs chroniqueuses. Mm. Euh, Mia kontaan naa si yow sa présentation. <laughs> voilà top Ramsès caatu groupe bi <laughs> maa ngi lay jox rendez prochainement donc di kontaan ci suñu mbokki internet yëpp. Mm. ak toute l' équipe Equivox TV yeeg suñu réalisateur yeeg suñu caméraman yi. nga xam ñoom ñooy def le travail dans l'ombre te kenn du leen tudd te ñoom liggéey bi li gën a métti ñoo koy def voilà ziar naa leen <laughs> Aïcha am na solo loolu Tasuka c'est toujours un plaisir de l'avoir avec nous sur le plateau d'Equivox TV Ramatoulaye ma bàyyi la rek nga tàggoo ak suñu mbokk internautes yi euh, Mariama du ma tàggatoo suma xol daa dafa jeex dafa jeex en mhm, dafa cas euh, parce que en tant que célibataire j'ai j'ai très peur et j'ai raison d'avoir peur et je suis sûre que toi ah man de moom instant yi moom. joxoon naa sama bopp dale mais xam naa dama gën a pousse. Euh, surtout <laughs> surtout loolu bañ a mm. yàkkamti surtout. surtout voilà sama jigéen ñi nañ bañ yàkkamti c'est c'est vrai que ku nekk ku baax ki lay xaar. Mm-hmm. mais ñuy gëstu bu baax a baax a baax fu ñuy dugg. Mm-hmm. su ko defee ñu joxewaat rendez-vous demain incha allah si seen émission seen cas. nii rek lay demee ak yéen saa su ne plateau Equivox TV team bis ni ki tey la ñuy daal di def rek ànd ak yéen chaque jour di leen andil cas bu bees cas yoo xamante ni euh, lépp loo xamante ni moom mooy société bi dañ ciy gis seen bopp ñu bañ a rek fàtte li nga xamante ni moom mooy police ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy chargé ci genre situation yu mel ni bañ leen ci euh, épargner daal di leen di rek delloo te aussi bàyyi ko ci loxo yoon incha allah mu géré yëpp di leen jox dig daje demain incha allah même heure sur Equivox TV restez